asalaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan ci biir www.leuztv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci topp bi ngeen ñuy topp di leen baalu àq ci weeru koor yi parce qu'on n'a pas encore eu euh, a ngi suivre bu baax suñuy sketch yu ñuy dawal ci koor gi lu ci mel ne koor bi déew ñoo ngi leen ciy remercier bu baax alors euh, exceptionnellement euh, on a fait une petite sortie ci biir Ramadan bi c'est suñu papa suñu xarit koo xamante ne nii ci suñu famille la bokk suñu biir la bokk euh, saa bu ñu ko soxlaa day ñëw euh, ñu dew ñëw tey tey biir euh, Géejawaay amoo seet si suñu papa père Ouza euh, père maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la remercier aussi ci accueil bi nga ñu accueil di la baalu àq ci koor gi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama gars yi bég naa lool ñi euh, ma tàmmali di def rek tàmmali ko ci barke bismillahi rahmaani rahim di ñaan sans borom ci barke yërmande weer wu tedd bi yàlla yërëmaat ñu aaraat réew bi. aaraat ñu ci barka baatu laa ilaha illallah wala xawla wala quwata illa billahi il azim sotti ñu jàmmi ya salaam jàmmi leylatul xatar ba dem ci yaa salaam ba yekk ci wa salaamun alal mursalin walhamdulilah rabbil alamin yàlla na ko yàlla defal mais euh, Père Ouza musicalement fu mu toll am li ma mën a wax rek mooy ba ñu am nit fan ne ko olof tudde mooy vingt ans fu gëbañ ci amoon ak nañ ko gëme woon léegi at yi tax na ndeysaan dañuy jëkke tayal malgré rek nostalgie baa ngi fi dañ mën a dégg lu baax corriger tuuti continuer waaye daal vraiment daal actuellement daal euh, ñu ngi ci leneen daal. mën nañu wax ni Perouza dafa euh, il est à la retraite maanaam retraite musicale. Euh, retraite gu ma dama guma retraite ndax ñi nekk Europe ñoom nee nañ samay doom macha allah ñu ci bari ay musiciens lañ yaakaar nañ ne war naa def benn acoustique. ci les machines amoon succès ay saxaar ga yuxoo ay nobel xew def ma maa réer nee nañ ma saxaar ga yuxoo <laughs> war man nobel moom ma gën a daane sama morceau yëpp saan ñoom xalaat nañ ne dañ ko war a defaat ba fu mujj dañ ma leen yee bàyyi leen ba ma toog ba noppi ba xel mi des waat ma ñëwaat def ko dañ ko war a defaat daal fàttali ko démb jëm tib yi nga xam ne daal def na feuille flamme ñi naan xaadimo ñi naan vingt ans ñi naan six heures yëpp daal ñoom ñaan ñoom daal ñoo yor bi léegi waaw ah, <laughs> baar bi. mais dañoo am habitude à chaque fois Père Ouza euh, euh, day def musique thématique maanaam bu réew mi amee ay tuuti yëngu-yëngu nga nga génn jàlle sa message à ta façon euh, maanaam nga jàllale ko ci musique est-ce que jotul moment wi ñu toll. nga def nga delloo buum ca boy boy ga. feeling ba inspiration bi mu ngi fi damay tëdd guddi wax ne lii lañ ma wax pour ma wax. waaye dafa fa ba tam sagesse ngay ngay wane sagesse am na loo xam ne am naa ko sama bopp sama xalaat waaye dama ne sage toog ak ñi ma ko war a wax ne lii laa d'accordul def na loolu ma gën a sage ci man at yi ma toll moom la xalaat. malgré que instant bi politiquement. Euh, réew mi quand même xaw na xaw na yëngu tuuti ñii ngi xëcc jëm gauche ñii di xëcc jëm droite yenn déclaration yi ban jàngat nga ci def ci actualité bi ñu fi ñu toll nii. waaw fi ñu toll nii ndeysaan dafa woy bu ma woyoon ñu ngi koy wax euh, li ma seen neexuma lii raam jëm ci ñun j'accuse j'accuse mais bi wax duma j'accuse dama naan li ma seen neexuma lii di raam jëm ci ñun attention attention attention bii noonu lay waxe ndax réew mi ngi ci guuta boo xam ne bii ca mën naa yaakaar ne dama ko mën a xalaate politiciens yi ñu ci war a nar a yóbbu sa laaj ñu am xel moo xam ne yàlla mën nañ ñoo defal sutura ba ñu mët li ñu doon nañu xam ni ñooy peuple bi ba politiciens bañ ñoo ba ñu dugal ci guuta ci daay goo xam ne du fay ba abadan sa musu fee am yal ci yàlla musal ah man nag euh, ni ma mës wax rek mooy dama yàgg ci seen politique bi ma nuy wax ne sama vie yëpp politico culturel la ba may nodde defe naa tey jàkk yu bariwul <laughs> may nodde donc bu ma toogee liggéey réew mi ba réew mi dem fii mu jëm ci côté boo xam ne nag mooy côté bi gën a dangereux ci réew mooy boddante xeet boddante diine ay tarixa bu jegee rek ma ne ah daaw ma wax ci weeru koor parce que ñi xam ne yëpp xam nañ weeru koor hibernation laay def même ba ma daan def musique weeru koor hibernation dama daan bër sama benn xarit wax na ma ko démb neex yaa ngi nettoyé kër yi ma ne ko maa ngi raxas kër gi bu weer koor jot dama raxas kër gi ndax li ma xamante ne dañu tooñ tooñ yu bari yoo xam ne weer koor rek la ñu yaakaar sa borom yërëm ñu ci barke géeru géer ñu xare ñu àjjana taxe ñu wa zahir wa baatin donc bu ma gisee nag léegi lii de ma ne naa jóg wax parce que amatuma jot gu ma way jot gi amatu ko xëy na baat bi newatu fi waaye ne naa jóg ne réew mi mu ngi bëgg a jaaxal ca li nga xam ne mooy actualité ku nekkee xëcc may ñaan ni dal ànd ak seen sago ndax man Ouzin yàgg naa wax ne euh, l'homme est au-dessus de la race l'homme est au-dessus euh, de la race et de la religion parce que ñu bëri mu waxee noonu xam naa ni islam islaamay lokki dinañ ne critique waaye li tax ma ne l'homme moo nekk au-dessus de la religion bu nit wàccul woon diine du wàcc xeet du wàcc donc matériel la bu ñu yàlla jox pour dimbali ñu waaye matériel boobu nag bu ko ay nit buggee employé pour taal réew nit ñooy lañ leen fa la ñukk delluwaat ci yàlla amul benn borom tarixa bu nekk fii tey jëm ci sans ne nañ leen xeex ñu war koo topp mënul ne kooku moom loo tax mooy sama intervention bi ma euh, gëm ko torop tey parce ñu bari rek may woo fu nekk fu nekk ci li ñuy xuloo nii kii ne wax naa lii ba ma ko waxee ça vingt ans boo demee ci mosto xaadimoo dama ne boo gëstoo dem. waaw boo gëstoo dem xam ne màkk ñu tuddoon bàkk ña fa tudd ña fa dëkk ñu leen doon woowee al mbakki yu bamba bamba bu du woon di yàlla ah, wax ci alxuraan ñu ne yaay suñu yonent ça fait trente ba ma ko waxee sa man ba ma koy wax gëstu laa def waxuma ko woon pour bot benn tarixa waxuma ko woon pour bot di benn diine mais dafa ko waxoon pour apporter africanité biñ ci mag ñi indi woon ci islam africanité bi ñu indi woon ci lox waxuma arabité mais africanité bi mag ñi idumati l'islam nga dem ci xaadimu rasul di suñu wasila ñun ñëpp dem ci géej gi xeexal nit ku ñuul indi apporte dara ci l'islam sama maam alaaji Malick wasifa yi foo toll dégg ci dëkk bi exemple bërki démb laa dégg ndeysaan El Amin yàlla na yaa yokk leeram mu doon def méga xadara sama yaram dafa daw ba ma dégg euh, euh, Nasir xàkk bi xàkk buy daw ci euh, stade Amadou Barry mais loolu plaisir la nga dégg sama mbokk laayeen yi ñëw na laay maxtaar donc signifié wu ñu ni kii tëggal kii gi laay bu buñ na laay rek jeex na ñëpp a ko bokk ñeseen yi yàlla may leen ñu dem Afrique toj ko ak ñeneen ñi ak ñeneen ñi xëy na am nañu yeneen yoon yu ma yu fàtte sama mbokki cekkeen yi xarab Samba Sadio sa bàyyi daan góor ña ñoom ñëpp ñu def loolu ngir lan diine l'islam nit ku ñuul africanité dans l'islam am naa droit parce que ci réew bi laa bokk ci liggéey naa ci loo xam ne xëy na ñoom état bi xamuñu ko waaye peuple bi fu ma tomblu dañ may rappeler sa warugar ci peuple bi xëy ñoom jeunes yi xamuñu ko waaye man xam na sama rôle bi ma war a jouer te li may wax nag waxuma ko nga Idrissa Seck parce que man fekkoon ne Imaak Idrissa Seck rek a tax Idrissa bañ ko jëkkee jàpp man kese maa taxaw défendre ko baay te mu may dégg musul maa dellu sa njukkal musul wax ci boo doon dama faram moom Idrissa moom ma may dégg de ba mu duñ ko tëjee ma wax bàyyi ñëpp di jooy ñu may téléphone partout ne noo noo inspiré morse bi dimbal ak yërmande des xam na morceau boobu ñëpp di ma laaj waa Idrissa Seck faruma moom c'est parce que dama ko defoon ngir yàlla. sa moom li ma bëgg expliquer faruma ak Idrissa damay wax dëgg laa moo tax ma wax moom ci bopp Idrissa mosuma wax téléphone sax benn la ko ma bu bu mu génnee reconnaître loolu li ma ko defal waaye man loolu taxumaa jóg li ma wax nii rek dama bëgg rek gars yi bañ a jël waxi Idrissa sek bi def ko loo xam ne lii day taal réew Idrissa Seck na nekk Tijaan damay jëriñ suñu maam Alaaji Malick <laughs> wala génne tamit jëriñ maam Alaaji Malick Idrissa Seck dugg na euh, euh, euh, waa kër Xaadimu lu muy jëriñ sëñ Touba sëñ Touba li mu am yàlla may na ko maam limaam li mu am yàlla may na ko ñeseel li am am waa cekkeel li am ku nekk li nga am yàlla may na la ko donc nit ñi dellu seen xel ñu ànd ak dal nga ñu ànd ak dal ànd ak teey ànd teey vraiment man réew mi dama tiit fi ma toll nii. donc waa wax ci parce que wax ji euh, am na ñoo xam ne dafa. offensé pas sax murit tiijaan laa yéen wal mais dafa offensé jullit parce que boo dafa mel ni dafa ni euh, Jérusalem moo ëpp euh, fa la nit ñi waroon a dem euh, aji wax boobu peut-être xëy na leerul ci yenn bopp yi moo tax yenn réaction yi am voilà xam nga nit ki dëkk naa commentaire yi ñu ba ne dafa juum ndeysaan maa ngi gërëm oustaz Alioune Sall sama xarit wax ju rafet foo ko fekk puso mu ne dafa juum na ci juum na ci lii juum na ci waaye góor kenn du ko génn ci lislaam dégg na ustaas sama xarit Alioune Sall ah ki ñu wax tam sama sëriñ sama rak Sidi Lamine xam naa ba ma koy wax lu ma leer la xalaatu ci ne ampleur tijaan murid dina am parce que moom ba Sidi Kaba xaw ma Sidi Kaba la nu mu ti ba mu demee Israël moo ko jëkk signalé donc moom loolu rôle am lu mu défendre waaye daf ma leer ne bu xamoon na loolu bu ko génnee dina toog buy murit ak tijaan ñu naan xiiroo ŋaayoo du ko def parce que je ko ne très bien c'est un panafricaniste il croit à ce qu'il fait ah ku demee ni Ahmed Khalifa Niass ku bañ tam li yàlla may da ngay juum parce que yàlla may na ko c'est un islamologue je l'écoute beaucoup ca am naa sama mbokk yoo xam ne samay mbokk murit ji des ñu mer ba dugg ci ñooñu sama lu ma leer ñooñu liñ leen défendre sëñ Ahmed Khalifa Niass am lu mu wax bërki démb diggante ak Iran Ndaw daaw la rek di 2017 la ku fi ne woon El Amin est-ce que dégg ngeen El Amin wax ci métti woon na bu xasante damay dem poli am déet dégg daaw boo dente lan la yoon yoonu diine El Amin waxu ci benn mot c'était sa force cette sagesse loolu encore may ñaan kilifa diine yi di ñaan xam naa di ñu comprendre waaye ñun nous sommes des artistes mais nous sommes des artistes di wax toujours rek ñu métier yàlla la ñu yor ba cre créer ñu on crée yàlla day créer métier yàlla la ñu yor donc bu ñu gisee suñu mbokko ak bu ñu gisee mbirum artiste na ñu xoolee beneen baatin bu ñu xoolee ci zahir bi nañu xool beneen baat dañuy ñaan bu kenn. topp benn kilifu diine bu ne na nga dem xeex ngir tarixa ngir diina sax fu mu ne Sénégal dépassé na loolu jihaadul nafsi xeexal sa bopp te di borom parce que li ñuy tooñ moo bari jubuñu li ma wax toujours damay nekk ci bàmmeel may ñaan ma ne du ñu jubul loolu tax maa ngi yërëm ñu jubuñu ku la mën taxat ñi ci jub sur cent personnes kenn ci jub kon donc maa ngi ñaanaat réewum Sénégal bu ñu tax ñi gëmul tarax réew ñu ca encore une fois euh, damay wax ne wax naa ko sama benn euh, belle sama rakk jabar professeur à l'université Tata mu wax Muridilaay ma ne ko Tata bul topp waxi nit ñi mais ñëpp a woote Muridilaay yàlla dafa def mu feeñ ci Sëñ Tuubaa boo demee ci euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif boo ko liiree xam na murid laay la du dara ku nam ku lu baax la ku nam ma jëm ci yàlla mooy murid laahi ñëpp moom la ñu woote boo ko ci ci xalwatiya am am xasali dem ci xalwatiya dem ci chaziliya ah eh, dem ci senusiya al maxtaar al kunti bi noonu eh, Bamako mooy maami kunti kunti yi képp koo ci woote rek murid laay la woote woon après bi ñu demee lañ leen tudde seen tur yi pour tubaab bi mooy def loolu tijaan xaadiriya mais ñëpp muridillahi la parce que ñooñu dépassé woon nañ ñëwoon nañ seen diggante seen ba ruusoon nañu jël seen tur di ko tudd yoonu yàlla ñoom ruusoon nañ ko c'est que tubaab bi extérieur ñoo leen tuddee tijaniya xaadiriya ba mu nekk waaye ni muridillahi exemple bi ma lay jox islam depuis Adama ak awalu islam commencé waane mu ngi feeñe tëp tëp ci Mouhamed géeru géer gi mi ñoom Ibrahima ak Euh, Isaak yëpp islaam la wànne kee ko mottali nuñ tuddati géeru géer ñi muhammadu rasulullah sallallahu taala wa sallam moo ko mottali loolu mooy yoon wi bu amee xel rek xam ne dara jaru fi loo xam ne di ah <laughs> kii nekk di tijaan kii wax ne lii eh waxu Idriss Seck bi mais ça n'engage que lui dégg naa benn waaye bu euh, ni ma sama xarit Oustaz Alioune Sall gor doone ko génn nga ci diine surtout li ma dégg ñu wax nee na d'après les juifs nee nañ li dee li xëy ni di ko jox son erreur moo naan man xam na ça a été une erreur fatale waaw je sais moom il est comme ça il s'assure catam mooy peut il croit que il a le monopole de la vérité et puis euh, al amin waxoon na ko fii ba muy dund nekk ndit koo xam ne da ngay defal lépp loo yow rek yaa am dëgg al amin waxoon na ko fi loolu moo ko indi lii tey moo ko indi lii tey waaye nag li ma wax moo ci ne Idrissa Seck wax na lii waxul lii nañ leen guerre digg Tijaan nag <laughs> ak murit mais ñun peuple duñ ko nangu bu doon géeru diine ak diine sax duñ ko nangu ci jamono biñ toll kooku jeex na jiyaat boo xam ne dangay xeex jeex na. jihaadul si moo am importance si ñun ku nekk da nga xeexal sa bopp xam ne sa bàmmeel yow rek yaa fay ne loolu tax ma bëgg encore Sénégal ñu jublu ñu ñaan surtout la jeunesse fekkewuñu démb xamuñu démb xamuñu fa mag ñi jaar entente mag ñi am daan gise ba tabax <coughs> baalal ma ba tabax loo xam ne Sénégal rek ko ko am Sénégal rek ko ko am Sénégal rek ko am culture bi dama ko gisee bu woote woon ñu jëpp ñu bokk ci ay mag lañ soxluñ ci dërëm ñu ngi sant samborom borom di sant bu baax aji maam yàlla dim taxaw moo donc ñu encadre culture bi man ka ne defalal ñii lii nga defal nga xool sacerdoce yi ni ñu mel les anciens sama morom yi ni ñu mel su yooyu yëpp tey ku dema dem man mënoon naa toog ma salaire dem ñëwal loo xam ci culture bi noo bëgg ñu defee culture bi euh, ñiy def théâtre gis naa leen gis naa leen am na ko dafay ñu ñëw ci wax ma seeni problème yeneen musicien dafay ñu wax ma seeni problème lu ma mën def lu ma ma def du ma wax kenn nag waaye loolu moo jaaduwul am ñoo xam ne war nañ am subvention boo xam ne par mois war nañ leen cee dimbali parce que dañu bëggal réew mi ah dañu bëggal réew mi dañ ñoo xam ne dañu jàppoon réew mi fu nit ñi mere ñu reetaan leen tey ndeysaan at bu ñëwee eh, yàlla def ni xale yi am ñu amoon noon chance boobu xale yi dañu conscient ne dañu war a réussir ci ñun saan dañ daan bëggal nit rek jouer guitare rek ñu ne oh Ouza mën nga wayan ah? Ouza révolution ñu kontaan <laughs> def loolee àdduna woote ndeysaan ñu ci bari tey en sont en rade kooku nag ku demee culture tey dox mu culture président de la république miin naa ko miin ne ma ci président yi fi nekk moom laa gën a miin ci président yi fi nekk yi ma mës am ci Sénégal moom laa gën a miin ci président xëy na nag gis ko jafe na waaye nag xam nga toogoo man laaj ma culture bi ma dimbalu ko ci parce que ñu bari ngi dem en rade li ci Marème Faye def ñoo bari dafa dafa ñoo ko ci donc moo tax bu ma gars yi ne wayel président ñëpp dama damay nettali <laughs> benn anecdote dama dem en Europe seeti diaspora bi ndeysaan ci tëju xalifa sax ñun Ouza ma ne wax naa ba dee ñaan naa président ba taay mu ubbi mu tijji xalifa parce que li may wax toujours rek ndeysaan bay soo mitee les mën na ma seede ba mu jël entre premier tour deuxième tour xalifa bu ma wooyee ndeysaan danaan waaw doyen foo leen toll diw joxu la de man ko sama xaalis jeex na xaalisu aji jeex na mu ne jaaral bureau ba il faut Abdoulaye Wade dem jàppal jàppal kooku dama koy sédd toujours xalifa Sall loolu bi ñu ko tëjee mu mitti ma ñoom ñëpp dafa ne nag opposant la sama waa kër waa APR <laughs> dafa ne opposant la yaa may dégg donc buñ la ma woyal président ma dem ok ma dem Europe diaspora bi war ku ma gis rek ouza looy xaar ci président ouza laay xaar ci président parce que réew mi Sénégal Sénégal Sénégal jëmmi Sëriñ Bamba ma tëdd bu guddi ñu déey ma man dañ may déey man way politique man euh, euh, dañ may déey yàlla moom ma baaxee loolu mënuma way mënuma dara maa gën a nul ci musiciens yi wala sur le plan politique dañ may déene waxal li waxal ba indil ba beneen président niw lëkk ñu jox ma ko <laughs> ma ree ndeysaan aji ni man ko xam lii du ko génne jamais mu ne ma ah aji ne ma sa diggante ak maram fay moom man ko xam nga ba lu lool sax aji maa fii ne ma sa diggante ak maram te dafa woola def doo ma ne ko mu defam loo xam ne da nga koy russe nit sa allah kulli aal lu Macky Sall mën a def ba mu des ñu d'accord góor jigéen bu boobaa nag ma xaru <laughs> <laughs> waaw bu boobaa moom booba moom Moussa dootul ci kenn waaye ñu <laughs> waaw incha allah bu boobaa nag Moussa dina mën a wax waaye bu dul loolu fas kee néew ma jël morso di dal président de grâce à cette dame Euh, merci merci Perouza euh, euh, tey dañoo ñëwoon taataan si comme ni ma ko waxee woon léegi maa ngi jéggalu baat bi damaa soj dañoo ñëwoon tey en tant que set seet si suñu maam en tant que sët en tant que doom seet si suñu papa waxtaan ak yow un ci li nga xamante ne actuellement moom la ñuy wax naan li raam ci ñag bi la jëm yàlla bu mu àgg ci ñag bi yàlla bu mu àgg ci ñag bi murit laayeen xaajar tijaan ñun ñëpp ñoo yem. ñëpp ñoo yem ñun ñëpp ñoo yem. biddaay que boo dugg am na am na tarixa yëpp. waay waay famille boo dugg yëpp encore une fois aussi euh, ñu ñaan ñëpp dégg euh, per Perouza bi bi nga xamante ni lancé na ko à l'endroit de surtout des jeunes euh, ñu ñu am beaucoup de conscience quand même mm. bañ topp ñi nga xamante ni nii yàlla dafa def taal fitna moo leen tax a jóg Sénégal ñoo ko moom ñun ñoo koy mm. liggéey pour suñuy doom ëllëg parce que ñoom ñiy liggéeyal nañ ko ñun ñun aussi dañ koy liggéey pour suñu ay doom père juste ce ce dernier mot waaw di leen gërëm rek di bëgg yëpp loo ci Leuz TV sama kër la yéen xam ngeen xel ne sama kër la dama yàgg ak ñoom dama yàgg ak yoon loolu bu may gis ay biddew ay yu taxi damay suivre damay laaj leen toujours dama leen wane d'accord ma d'accord ma ah di profiter ndeysaan di jaale itam ndeysaan ñaanal sama doom yu baax fi jóge suñu mbokki artistes yi eh, Papis Gelongal xale boobu damay profiter ci yéen di koy ñaan di ñaanal Habib waaye Papis Gelongal li ko ma koy ñaanal eh, jour dëju Habib bi maa ngi taxaw may sa ngoom mi taw Matar Seck mu ngi taxaw mu jóge fële ñëw nuyu sa ma di ko gërëm ne ko xale bu yaru nga lu nekk laa lay yekk booy def kilib ak aji dama lay xas saaga la mais da nga ne yaay sama papa samedi ba ci dokk ñu suul ko kon ñu ngi ñaan sama borom ci yër ma dem mu yërëmaat ñu barke bisimillahi rahmaani rahim barke salaatul fatiha barke salaatul ala nabi barke weer wu tedd wii ñu ngi ñaan saa borom yal na yàlla yërëm mbokk jullit surtout suñu mbokki artistes yooyu parce que leen gaa yi teg mooñ fa lañ yàlla yërëm mbokki jullit yëpp xare leen àjjana mën na ko bu ñu lakkee du ko jariñ dara bu ñu baalee du ko jëriñ dara kon saa maa ngi lay ñaan ci barke baatu laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sanga ñu sanga mbokki jullit yi sanga su ko dul jullit barke astaghfirullah al azim lazi la ilaha illa wal qayyul qayyum defal ñu àddina biir ak biti wa zahir wa koor gi yàlla nañ ko yàlla nangul ñu fekk ay déwén jaay ngeen jëf yàlla na nag ngeen dem ca kaw ca kanam ca kanam. jërëjëf merci beaucoup Père Ouza tey ñu ñëwoon def benn entretien grand entretien spécial ak Père Ouza euh, euh, pour taataan un petit peu li nga xamante ne ni moo xew dans la actualité du pays que ça soit politico euh, religieux ci leen ñëwoon pour waxtaan ci ak Père Ouza quant à moi maa ngi leen di jox rendez très prochainement bientôt fii koor gi di jeex incha allah bi c' était très spécial mënuñu ko bañ moo tax ñu def ko donc très prochainement maa ngi leen di Euh, musicien ou autre, en tout cas, dans le grand entretien, Inch'Allah, sur www.lestv.com. Peace out. À bientôt, Inch'Allah.